mbokk yi dal leen a jàmm ci limametti.com comme à chaque fois ñu ñëw ci seen revue de l' actualité nekk li nga xam ni moo gën a fës ci xibaar yi fi jot a ñu daal di koy doo rek ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko ba léegi coow topp ko ci digganteem ak xale bu jigéen bi di Adji Sarr gis ngeen sortie bi nga xam ni xale bu jigéen bi daal dina koy def moom naka delluwul ginnaaw benn yoon ci propos yi nga xam ni amaloon na ko maanaam yi nga xam ni tegoon na ko ci ndoddu ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko moom mi ngi dëggal ni njiital Pastef bi dafa daal di yegg ci kawam te moom dafa bëgg rek ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko mu daal di koy bàyyi mu daal di dund ma loolu la daal di wax ci loolu sax ñuy gis information selon laquelle ki nga xam ne moom mooy soxnaay Ousmane Sonko di deuxième femme ni dafa quitté li nga xam ni moom mooy domicile conjugal loolu nag ñu ngi koy gis booba tey ñu koy partagé ci réseaux sociaux yi ñenn ci jege ñaale Ousmane génn daal di wedd weddi mbir moomu leen lu ci mën a am nag coow li bëri na loolu ci diggante ki nga xam ni moom mooy Adji Sarr li nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko di njiital Pastef ba léegi ci coow lool Adji Sarr ki nga xam ne euh, moom mooy euh, Ousmane Sonko kii di Ndeye Khady Ndiaye di patron Sweet bouté euh, salon de massage boobu le nga xam ne Adji Sarr fa la liggéeyee kii di Sonko sax daan fa defee massage Adji Sarr nag bi mu defee li nga xam ni moom mooy sortem daf ci tudd Ndeye Khady Ndiaye parce que def ko accusé ni moom moo ko sant mu daal di yàq ëmbam maanaam mu daal di jël li nga xam ni moom mooy café ak la li nga xam ne moom mooy Coca Cola boole ko ngir mën a yàq ëmbam na kii di Ndeye Khady Ndiaye nag génn na weddi loolu ba mu set wecc à travers benn vidéo moom sax mi ngi ci yore kaaminu alxuraan di waat ni loolu moom mosu see mosu koo def maanaam mosu see euh, takkee loolu nag di ay wax yoo xam ne ñu ngi tuddee ñu ngi tukkee ci ki nga xam ne euh, moom mooy Ndeye Ndiaye di patronu Sweet Beauté ba tey ci dossier bi nga xam ne euh, moom mooy dossier bi nga xam ne moom moo lié Adji Sarr ak nga xam ne moom mooy usmaan Sonko. ñuy wax ci beneen politicien di ki nga xam ne moom mooy Yakham Mbaye foofee nag ñu ñuy xamal ni euh, malaise moom moo ko daal di dal euh, ginnaaw bi mu waree dem fële nga xam ne moom mooy émission Ndoumbelane fële ci Sen TV euh, mujj faa teew nag ñi nga xam ne nag ñoom ñoo doon présenté émission boobu la ñoom ñoo daal di annoncé ni ki nga xam ne moom mooy Yakham Mbaye malaise moom moo ko daal di dal ba ba mujjul teew fële nga xam ni moom mooy Sen TV ci émission boobu nga xam ne moom mooy émission Ndoumbelane ñu koy ñaanal yàlla fëgg boppam. Thione Ballago Seck génn àdduna ci dimanche bi ñu génn mu doon na nouvelle bu nakari boo xam ne dal na ci kaw musique sénégalaise ak ci askan wi yëpp ki nga xam ne nag moom mooy Thione Seck nekkoon ku ràññeeku ci musique sénégalaise yóbbu ko fu sori looloo waral nag ba ki nga xam ni moom mooy président Macky Sall daal di def benn gest jëmale ko ci waykat boobule kii di président Macky Sall nag mi ngi ko tabb commandeur de l'ordre national du Lion loolu nag mi ngi ko def à titre posthume maanaam daf ko def ginnaaw bi mu génnee àdduna loolu nag di raaya boo xam ne euh, tappal na ko kële nga xam ni moom mooy woykat bii le di ndem si yàlla si euh, Thione Seck ñu daal di wax toujours ci génn àdduna ki nga xam ni moom mooy Thione Ballago Seck ginnaaw bi Youssou Ndour ànd ak moom daal di koy gunge ba ci këram gu mujj gisoon nañ tamit beneen déplacement boo xam ne def na ko ànd ak doomam jile di Birane Ndour moom nag demoon na daal di jébbal njaalam ki nga xam ni moom mooy Waly Ballago Seck ci biir jébbal njaal boobu nag ñu ciy forni ki nga xam ni moom mooy Youssou Ndour nee na kii di Waly Seck moom papaam la te lépp lu mu soxla moom. dina ci taxaw euh, bépp taxawaay boo xam ni euh, baayam ji euh, di Thione Ballago Seck taxawoon na ko moom Youssou Ndour dina ko taxaw di ay kàddu yoo xam ne nag nit ñi rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax ba tax nag foto yooyu nga xam ni sax defoon nañ ko ci loolu noonu ñëpp di ko partagé ñëpp di rafetlu geste boobu le nga xam ni Youssou Ndour def na ko voilà mbokk internet yi loolu lañ leen indi loon tey ci seen revue de l'actualité nekkoon li nga xam ni moo gënoon fës ci information yu fi jot a xew ñu leen di wax nag comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information limametti point com ngir dara bañ leen a raw di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen i xibaar